Sénégal en entier. parce que ñu seetlu Sénégal même bu dee côté politique dañuy gis ne y' a ay 3000 et quelques partis yoo xam ne tey. ñun sax ñu ne ëpp ay voix. ñoom dañuy ñëw ne taxaw dañuy def dañuy def politique. su ñu bëggee def noonu comme di ko def noonu est-ce que tey le statut de l'artiste bi nga xam ni le président l'avait déjà promulgué à savoir l'ex-président muy le président Macky mm-hmm. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. pour xool fan lay jóg fan lay jëm ci ak le statut de l'artiste. mais est-ce que tey statut de l'artiste boobu est-ce en fait bon man j'ai eu la chance personnellement de toog ak ministre bi ak secretaire général bi bi ñuy attaché culturel bi. Mhm. récemment comme man je suis euh, membre de la ci CEAO CEAO. Euh, SODAV bi. bon euh, ñëw nañ fa rendre ñu visite. ñu mm-hmm. toog ñu toog ñu déglu déglu ñu ñu defal leen exposé wu SODAV nu mu commencé quels sont ses problèmes fan la maanaam gars yi déroulé quoi. Mm-hmm. wax leen SODAV nu mu fa mu jógee ak li mu fa fekk ak lim ak fi mu toll yépp mm-hmm. bi ñu paree ñoom jël nañ parole apparemment jël nañ préoccupation yi nga xamante ne bii gars yi griffé nañ leen ci ba ñu xam ko. comprendre muy statut de l'artiste muy copie privée bi. je que ñoom ils ont été briefés là-dessus et puis dalal nañ suñu xel. d'accord dalal nañ suñu xel d'après li ñu wax xam nga bon li ñu wax dañ koy jël ak ay bien sûr mais mhm. ñoom nee nañ bëgg nañu mu bokk ci seen bilan wu 100 jours yi ok cent ban ministre saint maanaam suñuy lim maanaam si suñu problème suñu préoccupation yooyu mhm. bëgg nañ mu bokk ci maanaam bu ñuy bu ñuy dugg seen cent jours yi la njëkk réaliser réalisé mhm. bëgg nañ ñoon loolu bokk ci loolu c'est des promesses qu'ils ont fait devant nous donc man mënuma lu may bon am ci rafet njort di xaar ne peut-être dina aboutir. waaw